asalaamaaleykum mbokki Kër Massar ak mbokki grande banlieue yëpp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam may nuyu ak gërëm autorité yi ma gunge ba ma ñëw fii tey di ci jiital monsieur le gouverneur ak préfet ak sous-préfet yi di ci teg monsieur le maire de Kër Massar Nord mi ñu dalal fii ci xam ak yeneen maire yi nekk ci gox yi yépp di ci gërëm itam organisation yi ak association communautaire yi organiser lii di ci gërëm directeurs nationaux yi ak directeurs généraux yi ñoom ñëpp ma leen di nuyu di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ilimaan yi waa jàngu bi bàjjanu gox yi association yi képp koo xam ni jóg nga jóge ci gox yi gëm ni taxawaay bi mooy taxawaayu ànd communauté yi jóg pour joxante loxo saafara mbiru mbënd mi te nga nekk fii wala nga amoon yéene ñëw te mënuloo ko maa ngi lay nuyu maa ngi lay félicité di la gërëm bu baax a baax may gërëm ñi nga xam ni ñooy seeni partenaires yi leen jàppale muy international budget partnership ak ñi ñu àndal Urbasen IDDQ fédération sénégalaise des habitants association journalistes yi nekk ci mbënd mi ak euh, plateforme yi ak ñëpp ñi nga xam ni dañu def volontariat sol seeni gilet bu nawet jotee ñu dugg ci askan wi ngir xeetali leen laata état sax di ñëw ñoom ñu nekk ci maa ngi leen di encouragé yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant fii nag dama yëkkati kàddu ci turu président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ci turu premier ministre monsieur Ousmane Sonko li tax ma am mbégte tey taxaw fii mooy ñaari fan ci ginnaaw da ngeen gis président de la république jóg génn woo askan wi ni leen li ngeen may fal-fal jox ma doole jox ma kàttan ma am ay technicien am ay boroomi xam-xam yor état ak ay jumtuwaayam man président gëm naa ni mënumaa def résultat yi ma bëgg tant que yéen askan wi ñëw leen jàpp ci ànd ci ak man gunge ma ci bu ma joxoñee ngeen ñëw réaliser ma loolu te bi mu ko wootee la premier di samedi bi ñu jógee askan wi yépp génn nañu fii ci Dakar ak 14 régions yépp jot nañu rapport yi mu ci bale ci peel ci râteau ba ci camion hydrocureur ak caterpillar lépp génn na ngir ñu setal dëkk bi waaye ngir ñu préparer inondation par une action communautaire et citoyenne loolu nag li tax ma ci am mbégte mooy bu ma ñëwee fii tey ci heure bi may fi yegg si te yàlla def 9 heures ba tey maa ngi ci terrain bi zone de captage laa la tàmbalee ca Dakar ñëw ñu xool bassin bi waa gox bi ñëw wax ñu seeni xalaat techniciens yi ñëw wax leen lañu war a def pour saafara ko ñu jóge foofu. dugg ci banlieue bi dem hôpitalu caaro yi jóge fa dem jidda euh, jàmm gën si Kab Mbaaw jóge fa dem sortie 10 bu autoroute à péage foofu ci booru Rufisque dem ñàgg dugg fii Kër Massar Kër Massar sud Kër masaar noor bu ñu fi jógee ñoo ngi jëm Géejawaay pour woon leen ni ci suba ba léegi maa ngi ci terrain bi di saytu di xool mais li ma ci gën a intéressé li ma ciy gën a retenir mooy fépp fu ma dem techniciens yi wax nañu li ñuy liggéey te ma lu ko ndax ñu ngi def liggéey bu am solo waaye bokk na ci li ma ci gën a amal soxla li ma ci gën a soxal mooy askan bi faamum fu ma dem ñu génn ñëw jox ma seen xalaat ni ma lii suñu jàngooro la jafe-jafe la waaye lii solution la boo xam ne jàpp nañ ni buñ ci jaaree dinañu am saafara xalaat boobu askan wi di génnee ak determination bi mu am ngir taxaw ànd ci liggéey bi mooy li gën a am solo ci li ñuy def fii nag li leen fi dajale yaakaar naa loolu rek la ndax bu nawet jotee ngeen génn ni waajal nawet ñun da ngeen di dalal suñu xel da ngeen di xaar souvent état ñëw pour am lu mu leen defal waaye ndeke solution bi li ëpp mu ngi ci seen loxo ndax bu ngeen demee ba li président wax barki démb ni appropriation communautaire bu mbënd amee avant sapeur pompier di yegsi yéen yéen a nekk ci ndox mi avant ADM di ñëw yéen ak seen njaboot yéen a nekk ci ndox mi avant ministère bi yegg seeg ay kuréelam wala ONAS yéen yéen a nekk ci ndox mi yéen gox yi yéen a xam fi ndox mi di taal Point Baye yéen a ñu ko gën a xam fi am jafe-jafe yéen a ñu ko gën a xam kon yéen yéen ay la première solution avant ñun ñu ñëw di ci di ci topp di ci indi matériel wala ñu ci indi beneen xam-xam au plan technique. loolu moo tax bu ma leen gisee fii dana dalal bu baax baax suma xel fii fii nag ci Kër Massar yàlla dafa def xëy na moo ma nattoo ndax yàlla du juum. li tax ma toog fii tey di wax waxi nawet ak mbënd ay ñeenti at ci ginnaaw 2020 la mu amoon fii ay inondation yu metti ma toog suma kër di seetaan télé bi gis jafe-jafe yi nit ñi nekkee fii ñu bëri doon fi ñëw indi ay caméra filmé photo wu sax ci ndox mi génne dem wane ko ni dem naa Kër ma Massar xëy na sax doon ko politiser am na ñenn ñu ko def ma taxaw ni lii kat war naa cee jéem dara mu waxtaan ak ñi ma xam fii ci Kër Massar booba lii yëpp xamuñu woon ni dina am mënuma woon imaginer ni dinaa nekk ministre de la et de l'hydraulique ba yor wari wàlli wàlli inondation ma woo ci ay nit ñu ma xam ni leen kat dama bëgg a def dara mënumaa toog di seetaan ma ñëw Kër Massar dajale fi ay jeunes yu ma xam yàlla def muy jeunes yoo xam ni ku ci nekk yaa ngi ci parti politique bu bokkul ak sa morom muy pouvoir ak opposition ak ay association de quartier ak ay jeunes mouvement citoyen ma ne leen danaa fexe ñëw ñu ànd ñu jàppale askan wi ñu wan yóbbu ci quartier yi ñu xool zone yi gën a sensible yu gën a jafe moo tax bari na fu ma dem tey ñu war ma fa dama waxul dara rek waaye miin naa ko ndax daanaa fa ñëw ñu dem seet kër yoo xam ni famille yi ñu ngi ci ndox mi surtout yu am ay xale dañu ànd ñu dem loué ji fay ko pendant ñetti weer am na ñu fi nekk ay témoin lañ ci loolu maa ànd ak nit ñi ñu dem génne leen ci appart ci seeni i kër dindi leen ci ndox mi loger leen ci apartement yooyu ba nawet jeex ñu delluwaat seeni kër su ma ko mënoon jamono jooju junniy junniy junniy li taa koy defal waaye dama ko defoon ci sama kéemtalaay kattan loolu nag xëy na bokk na si li tax yàlla tey nattoo ñu lii ñu ñu war a toppatoo mbiru inondation te yàlla jox ñu moyen état moyen wu état du doon ni danañu mën lépp waaye danañ ci def suñu kéemtalaay kàttan dama fi ñëwoon ay weer ci gannaaw ànd ak monsieur le maire Adama Sarr ñu dugg ci quartier yu bëri di waxtaan ak askan wi ma koy félicité bu baax ci taxawaayam ndax fépp fu ma dem li ma joxoon te dëggantaan mooy bi ma demee nit ñi dañu ma naan bi inondation amee ci gox yi xam nañu ni du compétence transférée boo xam ne maire a ko man maire amul dooleen waaye gis nañu taxawaay bi mu am fu ñu tourné gis ko ak i équipe am bu dee moto pompe wala essence wala indi am lu mu jox la fekk que mu nekk ak ñoom rek ci ndox mi tax na mu dalal seen xel loolu laa gis itam Kër Massar Sud maire ma def ko ma leen di sant di leen féliciter may tëj rek di leen ñaan yéen askan wi parce que du rek Kër Massar a fi nekk ay nit jóge nañu euh, Géejawaay ak Pikine ak fépp ci banlieue bi li leen wax ni li leen président de la république woo ni leen appropriation communautaire et citoyenne dafa leen di won ni solution wu problème bii nga xam ne moo fi nekk ci seen loxo la nekk yéen ci jiitu nawet bii ñu jëm bi ñu fi yegseeg léegi ci ñaari weer la toll fii ak nawet bi di yegg di yegg si météo nee na ndox dana bari incha allah ñu koy sant yàlla nag ndax réew bu dee réewu béykat la doo bañ ndox bari donte ndox mi dina am ñu ñu mu lor da ngay ñaan yàlla ndox bari waaye ñu li ñu war a def mooy am taxawaay ba ndox moomu du lor ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir gox yi. ba tax na taxawaay bi nga xam ne danañ ko ci am mooy bi ñu xëyee léegi fépp fu nekk point bas ndox di fa taa ak bassin yoo xam ne ñoo koy defar ak ouvrage yoo xam ne tàmbali nañ ko te yeggagul. joxe naa ay instruction yu wér ni leen fii ak le juin wala au plus tard juin di jeex lépp lu war a jeex nañ ko pareel delloo ko ba nga xam ne bu ndox mi ñëwee mën a dem nee naa leen dinaa fi ñëwaat defaat fi beneen tournée bu may def ci tournée bi c'est pour xool instruction yi ma joxe ndax réaliser nañ ko buñ ko réaliser wul ma taxaw imposer ñu réaliser ko bu ñu ko réaliser ñu jàll ci yeneen mais li ma leen di garantiral mooy nekkul du man rek bu ma ko waxee waaye gouvernement bii nga xam ni moo fi nekk di bu président Ousmane Sonko jiite ko di premier ministre monsieur le président Bassirou Diomaye fay jox ñu ay instruction yu wér dafa ñu ne bu leen toog ci bureau yi ñu leen di indil ay këyit ngeen di jàpp ne looloo nekk ci terrain bi dem leen ngeen wax ak askan wi ngeen déglu leen dégg leen seen nopp bu ñu leen waxee ngeen xam li ñu leen wax kon nag kon nag ñu leen di sant encore une fois di leen gërëm di leen wax ni du ñu leen lâché mukk dinañu def suñu kéemtalaay kattan pour nawet bi ñu jàll ko ak jàmm kenn mënul garantir ni mën na du am ndax météo nee na phénomène extrême mooy ci diir bu gàtt ndox mu bare mën naa wàcc loolu nag mën naa indi ay jafe-jafe waaye bu amee lii ñu teg dina ko saafara ñun itam danañ fi nekk pour xeetali askan wi ba jafe-jafe bi wàññeeku waaye bu ñu yàlla dimbalee ñu génn ci nawet bi ak jàmm bépp projet boo xam ni commencé woon nañ ko gis ngeen projet yi nga xam ni ñu ngi ci gox bi projet 1 ak projet 2 ak yi nga xam ni ONAS yor na ko yi nga xam ni sapeur pompier ko doon def yi nga xam ni Promoville moo ko def wala Ageroute yooyu yëpp léegi ñu boole ak vision bu bees bi nga xam ni moom la président indi muy ñu régler problème yi de manière structurelle ñu at mu nekk ñu ñëw régler tuuti problème bi ñëwaat. bu ñu jàllee nawet bi danañu tëral ay politique yoo xam ni danañu fexee ba mbiru mbënd du ma ne dootul amati waaye am na gox yoo xam ne bu ñu fa intervenir ba noppi yàlla dinañ ci defal sutura ba dootul am leneen li ma ci yokk mooy dañuy wax ni inondation yi dafa jóge boor bii déplacé wu dem côté Sangalkam ma ne leen déedéet inondation yi déplacé wul nit ñi déplacé wu xëy na comportement yi ñu amoon te changé wuñu ko moom mooy tax foofa aussi di am ay jafe bari na gox yi ñu seetaan yu fu ñu jóge ci suba nit ñi nekk ci ci zone yoo xam ni daanaka fépp ndox la ay lac la ay nit dafa ñëw xëy na def fa ay lotissement joxe ko jaay ko ay nit te waxuñu leen ni fii baaxul loolu premier ministre jël na ci ay décision nee na définitivement lañ ko gàntal état bi dootul nangu ñuy joxe ay terrain ci zone yoo xam ne di fi édificandi la kenn waru faa tabax ñuy def ay signature bi ko joxe ay doomu aadama bu ñu fa defee seen alal alal ji yàqu dootuñu mën a takk dëkk ci seen ay kër te booba ñoom ñu kenn loolu si wu état la te incha allah lañ ci def lañ ci war a def may wax ni rek incha allah dañu war a jóge fii dem booru Géejawaay waaye monsieur le directeur général de l'ONAS docteur Cheikh Dieng moom rek bu fi teewoon doy na waaye bi mu ma waxee ni ma lii kat ONAS moo ko daan def te am na solo soo xam ne yow monsieur le ministre war ngaa ñëw wax ak askan bi ma ne ko kon incha allah danaa ñëw déglu waxtaan ak ñoom wax leen suñu yéene waaye bu ñu demee dana fi des ak yéen ngeen wax ko seeni mébét yépp monsieur le wax na ko lu ngeen jàpp ni jafe-jafe la waaye solution surtout itam ndax xam ngeen ko ngeen wax ko ñu dégg ko su ko defee ñoom danañ ko tënk ñu indil ñu ko ñu ànd ci ak yéen pour réaliser ko du ñu leen wax mukk ni da ngeen di toog rek ñun ñu defar ko waaye dañ leen di wax ni danañu ànd bu dee bale bu dee râteau bu dee brouette ngeen ànd ci ak état bi ak ay nitam ak kilifa yi ba ci suuf ñu ànd réaliser pour ñu defaraat suñu réew maa ngi leen di sant encore une fois di leen gërëm di gërëm bu baax a baax a baax waa partenaires yi nga xam ne ñoo leen jàppale di leen wax ni ubbil nañu leen bunt yépp ñun ay nit yi terrain lañu fépp fu ngeen ñu soxlaa incha allah ñu ñëw ànd ak yéen euh,